def yëfu góor jigéen di ma saaga en direct di ma wax lu ko neex mu muñ loo ko yàlla yàlla atte ñu mu dégagé TFM pour mu duggaat ko kilifa gu ne ñaan Youssou Ndour pour ku caa duggaat saraxu àdduna bi yëpp la woo saraxu pour duggaat moom du rus ndax yow moom nee moo ma indi TFM ci mu laa jaar ma doon li ma doon fekk ko fi presque trente ans de carrière doon yi ma doon am yi ma am ci réew mi njaboot ci réew mi kenn mënul xas sama njaboot mais moom tey nit ñi xamoon nañ ne baaxul de mais tey caa xaslu na askanam parce que ay audio moo fuité te audio bu fuité weeraange suñu borom la lan moo tax mu fuité jigéen la doon doxaan kon moom kum takk dala fen ba takk la daf ma fenal ñu jàpp ko fenal keneen ak keneen du rek la waxal audio yi 110 audio la sama bos laa coppati man ndax man sama bos moo ñor 110 je m'en ci yeneen man sama bos moo ñor man sama bopp défendre sama doom ñi ngi may xool dama leen di jéggalu ci yi ñuy wax seen yaay ak samay mbokk mais dama leen di wax ne leen ñoom sax xam nañ ma man borom dëj bi ko may wax sénégalais yi ndax ku wax di nga wax loo xata wax fi rek la yam parce que lima denc bari na su ma bëggee génn yépp dina wax lu ñu ma xeere li ci dess yoon la koy tek ci loxoom mu jëm diko ndax dekk yoon la ñu ne mais man Seydina Muhammad xam ne ne musuma bon buguma bon te duma mës a bon ba adina di tukki loolu rek la leen mëna garantir man waxuma sama jabo benen affaire bi ñi wax ci man nañ ma yërëm tuuti parce que jigéen joo xam ne laa ay bu ngeen xamoon li ma yenu jàmbaar laa de aw ma nday man du ma victimiser woon ah. parce que mënal naa sama bopp yàlla laa àndal. j'aime pas taxaw ci télé nan aw ma yaay aw non non non non su ma nee aw nday mooy yërëm leen ma tuuti nag parce que lépp man du ma ko attaqué. ndax man sénégalais yéen da ngeen ma war a nag da ngeen ma war a jàppale nag. parce que jigéen ju sàccu loo teg ci sama der woo xam ne damay génn duul loo ki ko wax ne la kii daf ma jiiñ giwin ku caa moo taxaw jiiñ ma giwin day fen dafa fen ba takk jabaram fen ba am ay doom ndax audio yii génn yépp ku ko déglu xam ne audio yépp da cee kàcc da cee kàcc tey man soo ma nee Amina dangay naan ma taxaw démentir ko mais Kouthia bu taxawee ne man du ma tux du ma naan man damay taxaw démentir ko ndax man ba ma ko fekkee Obama lu flag la teg di ko naan ah day fen moom lu ma waxal nit rek mën nañ ko ko waxal.